Música procès en appel bi war a dox ci diggante Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang le 17 avril gi la ñu ko daal di jàpp 17 avril di altine gi ñu dëgmal diggante Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang ñu fas yéene taxawaat ca cour d'appel ñu attewaat leen gannaaw ba ñu leen atte ba noppi daan jiital Pastef li la ñaari weeri kaso yoo xam ne sursis lay doon fëgg ci ndoddam lu toll ci ñaari téeméer ci ay millions yoo xam ne moom la war a ndàmpe ki nga xam ne moo di bi nga xam ne moom la ñu dénk wàllu tourisme fii ci Sénégal muy Mame Mbaye Niang waxoon atte nañu ma ko Ousmane Sonko am naa ci mbégte gaa waaye am naa ci lu mën a xarit te daan bi ñu ko daan dafa néew ndax li mu teg ci sama der dafa ñaaw dafa yàq sama der partout te loolee nag faaw ma raggu ci ba daat ci seet loolee mooy di tax interjeté appel dinaa dem ci cour d'appel daal loo xam ne daan la ñu gën koo doublé gën koo yokku teg ku ci noddul Ousmane Sonko li li nga xam ne moom moo di citation yi ñu leen muy Ousmane Sonko citation bi ñu ko jagleel ngir mu war caa wuy ji citation boobule dañ caa nemmi sursis lay doon maanaam ñetti weer kaso yoo xam ne sursis la donte ni ñaar la ko daanoon yokkal nañ ko ca beneen boo xam ne bokku ca woon muy erreur boo xam ne gannaaw ba ñu ko jotee dañoo nemeeku ne am na erreur dañu ko delloowaat ci ñi nga xam ne ñoo di waa cour suprême ngir ñu defaraat seen citation boobu yénne waat ko njiital Pastef li ngir ñu mu mën a jot ci citation boo xam ne daf koy firndeel ni altine fukki fan ak juróom ñaar ci weeru war a daal di génn mën a dem fi nga xam ne moom mën a dem fi nga xam ne moom moo di ca tribunal Abdoulaye Wade génn na ci tekkeral ga mu nekkoon Abdoulaye Wade njiital soppi génne gannaaw ba mu toogee ab diir soo xam ne kenn dégg ko kenn gisu ko moom jiital soppali di Abdoulaye Wade daa dinay àddu wax na ci li nga xam ne mooy situation politique bi am fii ci Sénégal wax na ak ñooñu soññu leen bu baax a baax xamal leen li leen taxaw leen takk taxaw leen ci liggéey bi taxaw leen ci bindu ci liste électorale yi beneen bi ci topp itam mooy Abdoulaye Wade wax na ak ñi nga xam ne ñooy xëccoo nguur fii ci Sénégal xamal leen li leen man jamono jamono cooy toll su ma neexoon benn clic de doigt laay def maanaam damay fett su rek ndaw ñu ñëpp daal di may fekk si te bu leen jóbbu leen ma ca palais la république su booba sama digganteeg palais waaye musuma koo def musuma xalaat jéggi ci ay néew ngir dugg ci palais de la république samay ñaar fukki xel musu koo xalaat kon nag nañu ànd ak dal képp koo xam ne yaa ngi xëccoo bul forcé te itam bul jéem a def loo xam ne dafay rey saw askan beneen bi itam mooy ki nga xam ne moo toog ci nguur lépp loo xam ne yaa ngi koy def te sa askan ànduñu ci bëgguñu ci ànduñu ci ak yow tegaat ko fi suuf te nga nekk ci leneen man Abdoulaye a soññ samay ñooñ ma leen doon jéem a defare mooy nekk ay citoyen dëggantaan waaye ñi ma ko jàmmarloo woon ak Senghor jamono joji le ben bat kot lañ dan politique moy vif Senghor man nak moy politique nek ay citoyen deugantane yo xamne dañuy xexal senum rew ministre bi de Antoine Felix diom mu ngi wu de ci mo ministre Antoine Felix diom gannaaw gannaaw ismaël Major Far mi ñak bayam niki demba Antoine Felix diom itam dal dina ci toftalu bayam ba dal dina koy dëdd wan ko ginaaw âge quatre manam ans manam juróom ñen fukki ak juróom ben ci la dal di wuy ji boromam ni ki jile la koy fas yéene boromam ca suufu Daaru Salaam nga ca Tuuba Antoine diom ñak ñàkk na baayam ba ci sama kàddu ah sama Public SN ñi ngi ko koy jaale te itam di wéy di ñaan suñu borom mu yokk yërmandeem ga yeesal ko ci jëmmi baayam joojule Mame na ci li nga xam ne moo di tiwi te gamu defoon gannaaw ba ñu ko àttee digganteem ak Ousmane Sonko ba daaneel verdict ba dafa daal di génne benn tiwi di kontaan ci justice bu Sénégal di sant ak di gërëm Sénégal ak taxawu gi nga xam ne jot nañ ko cee taxawu ba ñu ragg aw deram jamono ji la ba taxatul dara dara loo xam ne Ousmane Sonko mu ngi ko koy waxal Mame Mbaye Niang dañoo dem nee na tiwite boobee man defuma ko ki yor sama wàllu digital di sama rak mooy ki ko def te mooy ki ko def te consulté wu ma ci ba mu koy def xam naa mbégtale ci ñëpp dañoo toogoon ci nen ba tax na bi ñu xam ne moo di ci coow li xam naa contentement mooy li ko jàpp mu daal di koy def waaye loolee garaawul duma ko ci topp ndax mbégte ba mu ga mu àndaloon la waaye la amel naa Sénégal dëgg dëgg gi mooy man defuma ko tiwite wu ma binduma ba tey waxuma ni mbir mi def maa neex tey tamit nag neex na ma gannaaw bu Ousmane Sonko ñëpp xam nañ ne dafay kàcc man mi la doon tuumal te tuuma ma mu tek ci sama ndodd dara ci amul dindil nañ lolé ko to aw mbek tele ci man classe bu méttee métti digënt classe bu méttee métti diggante Serigne Momar Diagne ak Ahmed Khalifa nias Serigne Momar Diagne ñu baree ko xam fi ci Sénégal borom xam-xam la bo xam itam dafa yëngu ci mbirum waxtaanu diine ak la ci aju Ahmed Khalifa nias daf ko daldi di ay audio audio yoyele mom la Serigne Momar Diagne daldi ben vidéo boo mu ngi naan Sénégalais yi déglu len kàddu yi nga xamne Ahmed Khalifa nias ci bop moy kiko yëkëti tek ko ci sama kaw Ahmed Khalifa nias mang koy art ci audio ba diko xamal ne ko yow Serigne Momar Diagne man la Ahmed Khalifa Niass dama laa bëgg aartu nag di la tere sama tur bi nga xam ne moom ngay ute alal di ko utee bës di ci wax tere naa la ko bis ni ki tey tere naa la ko tifaaxan te bul ci waxati sama tur nang ko bàyyi soo bëggee jàmm nga ma bàyyi parce que yow amuloo jom su am nga jom nag bàyyil sama tur mbaalu ko may danaa la yóbbu ci yoon moom Serigne Momar Diagne ba mu ca noppee daf koo daal tontu ci ab xamal ko ne ko kon nag na waajal say plainte te bu mu doon benn ndaxte tudd naa la fukki yoon ak juróom ñaar tudd naa ñaar fukki yoon ak ñaar kon nag na nga na fexe ba sa plainte na toll ni ma la tuddee tudd naa la ba sàmb di ca demba maa la jox xar bi samay baaraam te yow la dafa nekkul fierté ci man defuma la ngir di Nabil Moustapha budul woon loo xam ne mbiru diine la man nawloowuma la nawloon teewuma ak yow faalewuma la toppatoowuma li nga bëgg nag xam naa ko te duma la ko defal mooy jokkorbanteeg yow ay baat nga wax benn ma delloo la loolee duma ci nekk ak yow ndax duma sa morom duma sa classe moom mi di Serigne Momar Diagne moomu ca noppee Ahmed Khalifa Niass daf ko daal di dellawaat beneen audio xamal ko ne kanam gi ko xool xool xam ne kanamu waa jahannama la yàlla na ma yàlla musal ci sa kanam gi daal di koy rëbb tegal ko ca Serigne Momar Diagne nag nee ko pare naa mystiquement ma soo bettul di ma fi fekk te itamit nag bu dee ci zahir la xam nañu ma bu baax man Serigne Momar Diagne danaa ko jëflante ak yow maa ngi lay xaar nag lépp loo banaa ko daal di ngeer ba mu jeex tàkk Pape Alé Niang wax na ci li nga xam ne moo di projet Mame Mbaye Niang ak Ousmane Sonko ni ñu ko gaawantaloo taf tafee ko def ko modu fast track moom Pape na ni Sénégal amatul démocratie Sénégal maanaam ñu daldi koy taf-tafe ci diirub fukki fan ak juróom danaka sax matuko ñu daldi woté wat procès bi lolé man jaxal na ma man Pape Alé Niang nag lii mu ngi may firndel ni Sénégal démocratie bi daldi na fi dee ba faw maître Amadou Sall wax na ci Ousmane Sonko maître Amadou Sall ci France 24 lañ ko interrogé laaj ko Ousmane Sonko ak liñ koy waxal ci digëntem ak Adji Raby Sarr li koy waxal ci digëntem ak mam bay ñaan maître Amadou Sall la mu ci wax moom moo di ne jiital Pastef li saa su nekk yéen ngi koy dégg mu nan dañu ko compléter compléter munul am ci ay mbir ndaxte ba muy dem ci Adji sar kenn néw ko kañu dem mom kott du moom dong moo toog ba ci waxtu couvre mu daal di sol ay yéreem bàyyi fa ay jéegam taal ab wataam daal di dem ba ci buntu salon sud boo xam ne massage bu confortable la moom maître Amadou Sall ko kenn ko kenn comploté ko lépp lu ko dal mooy ki ko teeg boppam arrestation bu Assane Diouf Khalifa Ababacar Sall daal dina cee wax moom Khalifa Ababacar Sall dafa ñaawlu anam gi nga xamee ne moom la ñu loxo Assane Diouf nee na Assane Diouf ni ñu ko tegee loxo naqari nañu ñu daal ci ni a gaawe mbaa lu ko may juif yi dana wex xàtt ci ñoom commando gi ñuy tuumaal ki nga xam ne moo di ex jëkkër bu Queen Biz bi la moom mi la di Queen Biz weddil na ko ko moom Queen Biz nee na sama jëkkër jëwoon la waaye nag nit ku baax la nit ku am yërmande la suñu borom mooy ki ko dogal waaye daal lenn xamal naa leen ko nit ku baax la nit ku gën la nit la koo xam ne dara ne nekkul ci moom ci yëfi seytaane suñu tuumal seytaane moom moo di moom moo di mbay kucca mbay lambar lambar oustaz Modou Fall mu ngi koy recadré di ko xamal ne ko bàyyil seytaane seytaane baaxul bàyyil di jaxase ay doomi aadama ndaxte seytaane dafa xaram moom mbay lambar lambar gis nañ ko muy sinab ak moo Modou Fall ñuy wax ci oustaz Mohamed Mbay bu seen TV waaye moom mi di mbay kucca dafa meloon ni ku leen doon jéem a jaxase ñoom ñaar oustaz moo Fall daal di koy tegaat ciw àndam riij ko ca ne ko ca dëjul te xam dafa xaram bàyyil di jaxase